man eh, combat yi boo xoolee senegal bi ma fay nekk combat choc yi yi yi combat yi ma bëree yëpp combat choc la ñi fa ñëpp doon mm. bàyyi da man maa leen jël bëri ak ñoom. Mm-hmm. te fayuñ ma ci benn xaalis boo xamante ni dama naan eh, da nga naan kii nii liñ ko fay ci combat bii moom ah kii moom xam nga lamb eh, lamb fay na ko quoi ci bés bi. ba mu des yow Mm-hmm. surtout man lan sama comme combat contre la la sama yaram gën a daw man bi ma bi ma demee ba découvrir li li li li kii comment dirais-je hmm, li lig Nicolas Faye Siteu dama ah toog dama jooy barki Serigne Saliou Lamine imagine toi yow man sama combat man ak Siteu ñaata lañ ma war a fay yow laa laaj nga bëgg ma ma bëgg yow ci sa conscience su bopp nga wax ma ci sa xalaat quoi sa imagination ak stade bi mu mel nga wax ma yow ñaata lañ ma fay ma wax la ko tey léegi 15 millions dix <laughs> quinze millions. waa ay quinze millions yooyu. <laughs> ndeysaan yow da nga baax. <laughs> sa xol ah, moo rafet Lamine combat man ak ñu ngi ma fay sept millions. non safar huit millions. huit millions. Mhm. fay Siteu ñaata. Siteu ñu ngi ko fay presque vingt et un millions. vingt et un ah mais Zarko mais bu amee vingt et un millions yow huit millions alors que Siteu public ba nu mu ko fa def c'était peut-être cinq fois plus que toi quatre fois plus que toi est-ce que loolu jaaduwul. Lamine tu rêves quoi yow xanaa seetaanoo seetaanoo làmb ji yow tu rêves quoi yow man li ma dugal foofu ci làmb ji yow Siteu fa dugal xaaj bi. xanaa xamoo yow combat boobu li li fa dugg ci doomu aadama dugg fa sax Modou Lo Balla Gaye. non yii làmb jooju nu mel dafa yéeme te vendredi la woon en plus ah. vendredi la laa la wax te xoola publicité bi di waroon am sax amu ci signature yi waroon am sax amu ci mais xoola li fa ñëw ci doomu aadama parce que loolu dafa xama lan la woon loolu eh, combat yi la combat nante yi la ñu fa ñëw ñëpp am da ngay dem ba ci biir Siteu sax da ngay dem ba ci biir ñu toog ci supporteru Siteu yi ñu nga fekk ba ñoo xam ne Zarko la ñuy supporter te tout fait malgré waaye doole ba politique man lu tax ma matt matt bi lu tax waaji ne da nga ko matt non yaay waa ji day wax man lu may dox di ko mbaat. man yow man comprendre moom man jékki-jékki naa jóg xool site di xool arbitre bi comprendre nga def foofu boobu yéey nga ko ba mu jeex. Lamine. Lamine. waaw bëre bëre. Eh, eh. bëre lan lay wax de. lan moo ah. lan lay loxo di ut ci ay bët di koloj nit. ah dalaa koloj. non daf ma njëkk koloj. ma dindi loxo bi mu ñëw di indiwaat loxo bi pour koloj juum ko dugal ko sama gémmiñ ma mat. baaraam bi ba muy bëgg a dagg <laughs> xanaa na yow yow